mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp nuyu naa leen pour le combat de la liberté oh yeah oh le poing levé nous sommes tous debout de la liberté mbokk yi Macky Sall je pars je pars je pars je pars lenn lañ koy tontu va-t'en va-t'en va-t'en va-t'en Macky Sall dégage Macky dégage Macky dégage wax ji du bëri lenn rek la ñuy wax te Macky Sall lañ koy wax le 2 avril lay pare gëmuñu ne pare na dem fàttaliku leen du def troisième mandat mu wër àddina bi yëpp wax nañ ko maintenir le 2 mooy terminus 2 avril terminus 2 avril terminus bi mooy dañoo bëgg mu organiser ay élections avant muy dem kan mooy nekk candidat ñetteel bi 19 candidats yi nga xam ne moom la conseil constitutionnel jàpp kenn du ko présidentielle avant le 2 avril 2 avril terminus ñetteel bi mooy foofu lay daanelee réew mi ñun ñoo ko war a sauver réew mi ñun ñoo ko war a ar

Kalante. Libéré Libéré Libéré Libéré Libéré asalaamu aleykum mbokk yi ziar naa leen bu baax a baax di leen indil nuyu suñu président Ousmane Sonko teg ci di leen suñu nuyoo candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbokk yi ku gis lii dina xam ne ñun pare nañu pour dem élection ndax askan wi mooy tànn micro bu ndaw bi xool bu ñu ñu ndaw bi mbokk yi képp ko ci kaw ci seen mbër ñun dañu pare bu yàgg comme ni ko yàgg waxee une bonne fois pour toutes loolu moo waral ngeen di gis ñuy génn saako yi ñu leen di xëccaat ñuy génn saako yi dafa am loo xam ne nag bëggoon naa ko wax askan wi bu ñu booloowee di xeex benn mbir ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje politique yi dañu war a booloo noonu ndax askan wi waru ñoo gën a gore waaye lii dëgg bay dëgg mooy su Macky Sall sañee def yenn yi daa fekk ne day am ñuy jéem a faagaagalante seen biir gis ngeen démb li xew de nañu jël mbir mi teg ko ils vont souffrir. Pourquoi Et au-dessus de la mêlée, Doumognom, son candidat va les laminer. Bassirou Diomaye Faye mooy seen morom te dina leen duma kon nañu bàyyi président Ousmane Sonko tranquille li leen metti mooy président Ousmane Sonko bu nekkul président mooy tànn kii doon président loolu la yàlla dogal jërë journaliste la mais dama leen di ñaan rek ngeen euh, organiser bu baax parce que yéen a ngi taxaw si kanamu leader yi te mën na andi gàllankoor tey si organisation bi il faut s'organiser davantage ñu nekk ci kanamu leader yi bu dee dañuy def interview ñu dem ba à rek su ko defee liggéey bi mën a euh, mucc ay parce que nag il faut ñu am benn certaine visibilité mais loolu day andi des organisations. Euh, docteur Babacar Diop ñu ngi lay. Euh, Fadilou Keita, Fadilou qui a été récemment libéré se prépare. après le Je voudrais Le sort d'un pays est trop important pour dépendre simplement de la volonté d'un individu. Le sort d'un pays dépend de son peuple. mais pas simplement de volonté d'un individu, du désir d'un individu. moo ko tënk constitution moo ko tënk waaye du bëgg-bëgg benn mu daal di grâce ku ko neex mu daal di amnistie ku ko neex mu ni ñi nañu la ñoo ko tëj institution yooyu ñoo ëpp doole Macky Sall institution yooyu moo ëpp doole président de la République war moytu nga mujje puso bi puso bi day Macky Sall avant lui démocratie amoon na fal nañ fi président Macky Sall amul droit mu installer le chaos au Sénégal Macky Sall amul droit mu mu libéré libéré gàttu mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu seen taxawaay yéen ñëpp parti yi fi daje yëpp responsable yi fi daje yëpp ñu ngi leen di magnifier bu baax a baax a baax a baax wax ji nag du gudd waaye ñun ndaw Sénégal tey dafa jot ñu taxaw temm takk suñu dënn wax ak kii nga xamante ne mooy président Macky Sall pour wax ko nag dafa doy sëkk.